alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi Cheikh Tidiane minu an kaana maalikul xalqi turan xaafiran ala asri zanama o Cheikh Tidiane minu an qaala taaxa an fix bilalan منو أن قال رب هذا العطاء ناظر سيقي أمين كل يوم جمعة أو من غيره سواء قول شيقي كالترجمان رسولين دون إفك وليس فيه غباء شطجان هائز من بري لدى يوم جميل ثم يرقى له عليه استواء شيخ تجان ثم نادى على القلائف كنادين على ذا الأسر تاب منكم منه إن هذا إمامكم ثم هذا نعل منه منال كرماء شيخ تجان كان لشيخي من كرامة قوم بائرة دهت بهذا الماء شخصيان كيف يعلو بعد الفراق سواه بلدتها وبدرها ودياء شخصيان أي دارا لدى بليد فدردها سبواتي سبو ففي باء شطدان كان للشيخ من كرامة قوم بائرات بهذا الماء شطدان سبحان من بصرت الأرض صدت لنقر يا الله باب لا فين السودان سيدي برأما داخل ريب نك سين قليم ويبو إبليس jaal na ma loolu wér naa gaañi barama iblis sëriñ la woon daf doon jàngal ñooñ asamaaw ma ne rëyam gaa ko xalak gëm leen siri barama ku yol kooba jàkk du ko faat moo di jàmburus mbottu xol bu suufe lay taa siri barama sakku le ñaqaam buur bi lañ pooseel machine ngeen ñi dox mu ni sàkkoom du taxaw gëm leen siri barama sàkku la ña xam buur bi dem de suuf wi sa asamaaw dun bi kenn dandoor la gëm leen siri barama adduna baaga jaax la duy faj maar dangay root ba de muy tuuru ngay rëccu gëm leen siri barama àddunaak lu doye la ca biiram ku ci topp sa nafs balaa ngaa déere cu gëm leen siri barahama yoonu faydu ku ci xasoobu melal ni ku dee niw ba yëngoo fan ya jeexul siri barahama niw bu dee bañ taxaw di ko tàggee mu jug di tissooli dooral mu dem tool ya deewut siri barahama bimbirling bambar benn doom ñetti mbootu doxandéem gi fuy sa makaan siri barahama barahama ñas jëmmam jaweesu na jëmmi xutbu xamal ñu ko doon seexu tijaan nga ñii doo siri barahama barahama ñas bëtam yu jekk yaa su ko xoolee ca kaw asamaaw mulkoog la ca malakoot war na barahama الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله غاني سكر لين لو أن ديمبو وين كم لين سيري برهما برزق الله يبقياني موت سيدي برهم نور الهدى فن سودان سيدي برهما أنا سوندخ aw ci digg manding mar dab la nga da seen tuddee kala may ndox mooy sa sowetaa siri barahama balañ ju koy puruux fay màbb jëf dara ki maj soob de gërëm mbër lañ won siri barahama xamee la nga xamoon ku la gétteeti ne ko yaa di njool mam Ibra Faal xamee suñ baay siri barahama mam Ibrahima Faal gàncaxu tos gi dootoo den dinaat mani baxru sam-sam lañ la roose gëm nga barahama pagg bu raase bi koo jàllee mu daagu heliina mam faala ragal boromam siri barahama man de sopp naa la ngir yàlla seydi ibra faal ragal borom laa ngi siri barahama xaalam bu barahama dëkk tànkam su ko yéexee faal warlu naa nga xuutu foofa siri barahama allah allah allah allah allah laa ilaha illallah gaa ñi sikkar leen xeetu jahil ñooy bañ sidi barahama ba may bàyyee ko caamen sama makaan da jëm njawara xaal baa ngi may tourné may wut sidi barahama fu laa dajeek seexu fay banjul mu may xemem loo ne abal fay du feñ na soodaan sidi barahama seexoog ma naan kent naa bi ba xeb mbooti mboot bawoo kay bu jëm ci soodaan siri bara ama bay seexu ko naat keroog bam sëfle ni nga ma ne bari ya rak fa por ba bara ama ibrahima mi ngi naan ko bay seexu ak ma baj bi famille teeri ndax ma présenté gar ba siri bara ama bay seexu ko naat keroog bam sëfle ni nga ma ne bariya rang fa booba siri barahama booba laa fa bawoo dem Sokone Dakar nuuru din maa ngay tàccu bagg bu heb siri barahama ba ñu déggee baatu laay laaga nit ña bëggandoor na abal faydu feeñ na ña seen siri xamoon nañ ne keroog bu jant fenke ña seen dana leer maam haaji ñas jur na yoon nen siri barahama maam haaji ñas mbala njambaan gi mbal nga jët mu maj bi yaa ñu teree di ci ngir ya sidi baraam jërjëri xataari billahi kenn du sidi baraam ndinkilin bambulaan naani sidi baraam ma ne buy jar junni cuj ba ma takkay ma gaañu sikar lañ jëmmi xaarif mbiram day foor sidi baraam ma ne buy tëbantu ci kaw doj baada buy tëbi foota yi hal kuy weddi nooni barahama tafsir omar kuta sayid na jaawa lañ ko waay suuf si ko si na mbër sidi barahama jampuy jaamu yàlla ba mu xoo booba jaam laa tafsir omar kuta màggal sidi barahama tafsir omar kuta ñeena la am nga yóbbal waay yóbbu yóbbu xaale ngërëmal sidi barahama saxaar bu dee lonku ay wagon de dem gaara tax góorgóorlu leen teew fakaar ba sidi barahama wawaw fagon bu xomaat bus bëri salte du xet marchandise dañ koy xalangal fakaar ba sidi barahama wawaw fagon moo di maj soob soppeeku faseq jami max joob xol ba faseq sidi barahama seexu zamaan bi tarbiyaat ma bakkan baa may sonal bakkan du dee dafay feebar sidi barahama alhamdulilahi nañu sant ibnu abdoulaye saxoo wir sax ci ànd ak sidi barahama laa laa allah allah laa ilaha illallah gaa ñi sikkar leen xeetu aboo jël ñooy bañ sidi barahama laa Mam Ibra Faal আলে বাই রাবল বাকবর সঙ্গ kojalle mo ɗaagu illina mam hibra faalala galbora mam sidi bara amma malakutu kullu seyin jëmm jaadi baay kibritu lamar bi doomaas nene baraama malakoota kullu sayina jëmm jaadi baraam kibritu lamar bi doomaas yaay ci baraama malakoota kullu sayina jëmm jaadi di baraam mugriyatullah marbido mas sey di baraam may jinne bu bëggee daqaar ku hiig daanu wàcc leen gaaw foo dey seytaane mo ngay weddi baraam dalli karbal ngaana ku ko sol ndaw jàll buy ñaaw fu taxaw ba di di ngaraat waaye barahama jinne bu bëggee daqaar ku yëg daan wàcc leen gaaw foo de seytaane mu ngay ay weddi barahama dalli karban gaana ku ko ndaw jël la buy ñaaw fu ngeen taxaw ba di di nga daan Seydi Bara may ne kër gumba ku fare tàccu ñu ne ñoom ngay ree baada yegul wa ke gëm leenaan Seydi Bara ma am na benn tajoor bu nekk suukun mu ngay ñaw di jooy machine ba xënt na moo bañ Sidi Bara may jënd saxaar di jàll ci nooca walaay a réer su ngeen xamoon tara ñi daw jëm fa Sidi Bara may ne tuub te jéem a tarbiyaw Cheikh Tidiane wàcci soo daan la ilaha illallah xeertu moo di bara may fasi haddina bëgg yàlla bañ a réeroog baay cheikhu di seen murabbi mooy sidi bara may sopp leen seen bokki xaari ñoo na doomi baay yi jëfee sari atumoo neex sidi bara ama ñay buy xalla babal doom yaa tax maccoo bi muy leen wattu leen mboot mi lool moo neex sooy di barahama ñay buy xal babal doom yaa tax maccoo bi muy leen wattu leen mboot mi lool moo neex sooy di barahama lam leen ci yàlla bàyyi bokkaale bay bëggul lool bokkaale day yëngal al di rekki maajoo sini bara amoo maam ibra faal gàncax ak toon gi du too jokkinaat baro sansan lañ la roose sini bara may na xaalam bu barahama dëgg tànkam bu ko yeqee faal warlu naa nga wutu foofa Sidi Bara meya bag bara sebi ko jàlle mu daagu ilina maam Ibra Faal ragal boromam Sidi Bara may man ne sopp naa la maami nen maam Ibrahima Faal Xaliilu Rahmaan be doy gaji fa malaw lala Sidi Bara moo Ibrahima Faal barul boor bi Faal ñaga yaram يا دروس البيع بارو ملكك ملكوت بسيدي برهم لا إله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

هي لا لا هي لا لا مامي برافال وايو باي لا لا هي لا لا هي لا لا مامي برافال وايو باي لا لا هي لا لا هاي لا لا مامي برافال وايو باي لا لا هاي لا لا هاي لا لا هاي لا لا مامي برافال وايو بايلا إلا هاي لا لا هاي لا لا مامي برافال وايو بايلا إلا هاي لا لا لا إله إلا لا مامي برافال وايو بايلا إلا هاي لا لا هيلا لا ممي برفال وايو بايلا إلا هيلا لا هيلا لا لا ممي برفال وايو بايلا إلا هيلا لا هيلا

la la لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ayuba la ilaha illallah mami rafal mami rafal la ilaha illallah mami rafal ayuba la ilaha illallah la ilaha illallah illallah mami rafal ayuba la ilaha illallah la ilaha illallah mami rafal ayuba la waay baay hay la la maam Ibra Faal waay yu baay la hay la la hay la la hay la la maam Ibra Faal waay yu baay la hay la la jarama maam waay baay hay la la jarama maam waay yu baay la hay la la jarama maam waay baay hay la la la la ga goxina wutewa mando ga tabe ga nga xam ne baylo la la la la mambay la la la la Allahu Allah Allah Allah Allah Allah bay Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ba yo Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ba Allah Allah Allah Allah Allah mamba Allah Allah Allah Allah ba alfu salat ما سلامي على لبيبي زيد الكيان لا لا لا لا لا لا لا لا باي باي ألف صلاتي ما سلامي وعلى لبيبي سيد الكيان لا لا la la la maam baay la la la baayo badrul wal qadamu saani la la la la la maam baay la la la المغرب قري فيد الفيود والقدم ثاني لا لا لا لا من باي لا لا لا لا أفريت فيد دعيت عبدا رغما ولا ذن تأجل تجاني لا لا لا لا لا ما باي لا لا لا لا باي فريد باي من تريد عبدا رغما ولا ذن تاج التجاني لا لا لا لا ما باي لا لا لا لا abdululilahi xalilulahi habibulahi maktumu sane la la la la mambay la la la bay abdul خليل الله حبيب الله مكتوم ثاني لا لا لا لا لا من باي لا لا لا لا باي كلام tewa mandoga tabega nga khamna bala la la la la mambai la la la la bai kalam gujak ga dokhel bai kalam ga doxina kundal kalama gu jekk ga doxinu teewa mandu ga tabe ga nga xam ne baylo la la la la mam bay la la la way kalam gu jekk ga doxinu bay ak la tabax na juuma sampoon awaay tabax na juuma talim téere sampoon nay daara xamal ñu yàlla mam bay tabax nay juuma talim téere sampu nay daara xamal ñu Yàlla la la la mam bay la la la bay la la bay yollu barama la bay bay Allah barama ya Allah barama wa ya Allah barama wa Allah barama wa wa Allah barama Allah barama Cheikh Tidiane jeexagul de jeexagul de waaw yaa biidoo aw yaa suudoo mujiibu daawalay baraama yaa biidoo aw yaa suudoo mujiibu daawalay baraama yaa aw yaa suudoo mujiibu baraama rijaalo aw nishaa'u وجيبوا ناولا إبراما كباري أو صغاري وجيبوا ناولا إبراما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la la বালাই বারামায় বাই বারাম বারামা বাই বারামা বারামা বাই মোলানা বা লা লা লা লা লা লা kuti Seexu Tijaan baay Seexu Tijaan ay na Tijaani Tijaani barama kun kai she kuti jani cham dal she kuti jani cham bakal she kuti jani aina ti jani ti jani barama e se kuti jani yaa jamila seexu tijaani yaa seexu tijaani ayna tijaani tijaani baraama coy xutbu allah baay coy xutbu allah baay ñun xam nañ kan mooy baay tijaani baraama yaay Seexu Tijaani ayna Tijaani Tijaani Barama aw say yaa ngi raamal baay baay aw say yaa ngi raamal baay ñun xam nañ kan mooy baay tijaani baraama kon kay seexu tijaani أين تجاني تجاني برام باي شيخ تجاني أين تجاني تجاني برام شيخ تجاني أين تجاني تجاني برام يا بوي تجاني تجاني برام شيخ تجاني أين تجاني تجاني برام

seexu aina ay na tijaani tijaani baramaaw tijaani barama tu Tijaani ayna Tijaani Tijaani Tijaani ayna Tijaani Tijaani Barhama xam nañ kan mooy baay Tijaani Barhama yaa nge njukkal baay ñu ne xam nañ kan mooy baay tijaani baramaaw tijaani tijaani tijaani baramaaw biiru kalba ñun xam nañ kan mooy baay tijaani barama tijaani tijaani tijaani barama mooy sob yaa ngi ramal baay ñun xam nañ kan mooy baay tijaani barama tijaani tijaani barama amal baay ñun xam nañ kan mooy baay tijaani baramaawo yaay boy ayna tijaani tijaani waa yaay njaanoo yaa nge sabal baay ñun xam nañ kan mooy baay tijaani baramaawo tijaani tijaani tijaani baramaa jeri jange sabal maa ñun xam nañ kan mooy baay Tijaani Barama woo Tijaani Tijaani Tijaani Barama géej yaa ngi sa ลบายนกครนั่นกันไม่บายกี่ยานีบรามายานียานีที่ยานีบรามาช่วยกดบัวอัลลาบายนกครนั่นกันไม่บายกี่ยานีบรามายานียานีที่ยานีบรามาวอวลบยังอีรามัลบายนะคำนั้นกันไม่บายที่ยานีบรามา o tijaani ay na tijaani tijaani barama séeréer yaa ngi raamal baay ñu xam nañ kan mooy baay tijaani barama yaay boy tijaani tijaani joola yaa ngi sabal baay ñu xam nañ kan mooy baay tijaani barama tijaani tijaani tijaani barama faaya nga màggal baay ñun ñu na xam nañ kan mooy baay tijaani baraama tijaani tijaani tijaani Barama Seexu Tijaani ayna Tijaani Tijaani Barama Tijaani Tijaani Tijaani Barama Baay Tijaani Barama Barama Tijaani Barama Barama Tijaani Barama Barama Tijaani Barama am kun jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay nañ màggal kii jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay njaaraama baay jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay jërëjëfe yaay njaarama waaye njaarama waaye njaarama waaye njaarama waaye njaarama waayo njaarama kon njaarama kon njaarama jazakamu lawo xayra yaa nene baay جزاك مولا خير يا باي جزاك مولا خير يا باي جرم واي جرم واي جرم واي جرم واي جيلو ولو جيلو ولو جيلو ولو جيلو ولو على خيرو Chơi Choila Kiro, Moizairo, dài ya. Moizairo, dal, Moizairo, ya. Moi batinoi, moi batinoi, con batino gầm lên yên phi ai, phi sharqiyai, fi ai. في شرقياي في غربياي في شرقياي في غربياي شمالياي جنوبياي شمالياي باغنا جنوبياي زمانياي زمانياي في الأرض يا باغنا في الأرض يا كل شيء يا باغنا يا نتام كل شيء يا باغنا يا نتام تنبكل يا jàmbakal yaay jàmbakal yaay jàmbakal yaay koko Seexu Tijaani jàmbakal yaay jàmbakal yaay jàmbakal yaay koko Seexu Tijaani jàmbakal yaay jàmbakal yaay jàmbakal yaay gëm leen ku ñu xamal xamal yaay gëm ku ñu xamal yàlla càmbakal yaay càmbakal yaay càmbakal yaay woy leen borom continent yaa neene caama càmbakal yaay càmbakal yaay wax leen borom continent yaa neene caama càmbakal yaay càmbakal yaay Afrique Europe Asia wa yaa neene baax jambakaliyayo jambakaliyay way afrique europe asia wayanene ba jambakaliyay jambakaliyay océani amérique lo yanene ba jambakaliyay jambakaliyay waylen borom bogro ye wayanene dal ko koy borom cinq bogro yanene dal kokoy borom senki bagro ye yaane ne dal kokoy borom senki bagro ye yaane ne dal Cheikhu Tijaan Cheikhu Tijaan Cheikhu Tijaan Cheikhu Tijaan nañ dem ba England yow ma jël yaay nañ dem ba France yaa ma jël yaay nañ dem ba di ma jël yaay nañ dem ba yow Amerika di ma jël yaay nañ dem ba Nigeria waay di ma jël yaay nañ dem ba Sara Mansour di ma jël yaay nañ dem ba Sara yaay waay di ma jël yaay nañ dem ba Orlo Ijaz di ma jël yaay Orlo Ijaz ñu ma jël man waay Cheikhu Tijaani jaram waay waay jaaraama waay jaaraama waay jaaraama yaayo jaaraama waay jaaraama waay jaaraama waay nañ dem ba Fass Cissé Diagne di ma jël yaay nañ dem ba Fass Maroka di ma jël yaay nañ dem ba Fass Maroka di ma jël yaay bilaa Seexu Tijaani jaaraama yaay jaaraama yaayo jaaraama yaay yow daal gëm na yaay booy njaarama yaay jërëjëf yaay oo oh, jërëjëf yaay jërëjëf yaay fe yaay kon jërëjëf yaay jëfe yaay jërëjëf yaay fe yaay jërëjëf yaay alhamdulilah alhamdulilah Cheikh Tidiane Chérif rabbi allah waaw papa sama yaay mu may bëgg a way diina leer ca kaw diina jooyatul ca këram moo seyda bismillaahi may bëgga way jantu diina leer ga kaw diina jooyatul ca këram moo diina mànkewul ca këram moo de gewal si diina ji tey ci yaay wareef la ci yow ngay gewal tageera ma kañ la ma ngay gewal tageera ma kañ la ma yaa di may sa gewal ling may xajul si bato noppi ma ci yaay maa ngi jooru noppi maa ngi jooru su fekkee ne saa des na tey ji lu daa ko way ba dee sama dëj baak leen ca way ba ñu am ay ma yantu ñu am jëmmi may gi fi dajeel moo de sayda may gi fi dajeel ngeneel de seyda tekki tekki na fi gan ko tekki wax ko ca kaw ruuhu yi ki leen sarwi kooku moo de ruuhu kooku moo de ruuhu yi de ne saa dundu des na tey ji lim ma taxem daa ko way ba dee sama dëj dee sama leen ci papa cam de yow na jël sa ileer bi dem si sa tool bàq baa ngi tooy sa mbayay bàq seydaay bàq baa ngi tooy sa mbayay bàq seydaay bàq ngi tooy sa mbayay bàq seydaay yow am ileer te mu ñëw kaay nga bayle ma sama tool ku ci mënta way na sa koo baaru naan ma ku ci mënta way na sa koo baaru naan ma baaru way wi bul ci tayal ismulaayi azam la yow sa soxla yee na ko tay baaru baaru naan ma yow sa soxla hee na ko tey baaru naan ma yow sa soxla hee na ko tey baaru naan ma tur du yem ni turu yaay borom jamono ji tey soo bëggee jamono hoyu la woo naan ko soo bëggee jamono hoyu la woo naan ko abonnement yi tey bi fi nga mooy abonné jamono kuy doxal jamono ji tey moo de sayda kuy doxal jamono ji tey moo de sayda kuy doxal jamaana ji tey moo de seyda soo duggee ci ab oto toog yëg na am moteur newu ca kersa bum lëngëb na laaj paas ba werse kersa bum lëngëb na laaj paas ba werse client yi yéen laay wax doxi leen ñaxtu yor sa paas juróom fukki at yegguloo ca yor sa paas juróom fukki at yegguloo ca doxam ñaxtu war na ku am ab sëriñ mu sax di la na jaam bu réere tey boromam kaay ko ñaxtu jambureere tey boromam kaay ko ñaxtu jël nga sokku ko wal muy sunguf nga def si cere laax ci fonde cagri ñeleen kenn rek la laax ci fonde cagri ñeleen kenn rek la yàlla rek la woon ki ko gëm yàlla rek la ba tayit meew mi soow mi diw ñor gi sang gaadi meew mi soow mi diw ñor gi sang gaadi yow nga yor sa meew dandamu man mi moom nag wi ma war noppi naa ku jeexal meew seeti na nag wa noppi nañ ku jeexal meew seeti nag wa bay sa gerte na ci ngooñ dëpp doom ba génn ca diw sa sëriñ bu dee naxu la dooto weddi sa sëriñ su dee naxu la dooto weddi sol dara mu jaadaaral fukki nga def kaala héematul gune yaayi xeewu nañ ci héematul gune yaayi xeewu nañ ci jël kurus guddal sa sikkiñ gasuwoo ba xam sa borom te lañ la may waay ñoo la raw ca teggiin lañ la may waay ñoo la raw ci gouvernement hu adduna bi ñoo ngi ñaxtu luñ bëgg ñoom yàlla kum yitteel na nga dox ñaxtu jëm ci yàlla kum yitteel na nga dox ñaxtu jëm ci gouvernement hu yàlla bi tey président bi mooy yaay booy ku sa sëriñ waxul lu la leer kaay ko ñaxtu ku sa sëriñ lu la leer kaay ko ñaxtu yaay yi bàcc soo yéexoon gaa ñi sànq sànq ñu ñu tuuti gaa yi noo gotuñu yaa ñu walla yaa nen sant yàlla war na jaambe sant yàlla war na ñooñun sant yàlla war na jaambe sant yàlla war na jaambe baay sant yàlla la ilaha sant yàlla na jàmbe illallah la ilaha illallah na jàmbe war yàlla lay lay lalla sant yàlla war na Gàmbi sant yàlla ilalla lay lay lalla sant yàlla war na Gàmbi sant yàlla ilalla lay lay lalla sant yàlla الله الله الله لا إله إلا الله لا إله la la lay lay la la lay lay la la lay lay lay la la lay lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la bye maulana bye shaykhul islam شيخ الإسلام بشيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام كندا الابل الفيد بايلا شيخ الإسلام جرجف جرجف مولانا باي مولانا باي شيخ الإسلام جرجف جرجف مولانا ay Mawlana baay jërëjëf jërëjëf Mawlana baay Mawlana baay Cheikhul Islam jërëjëf Mawlana ay Mawlana Mawlana baay cey Islam jërëjëf Mawlana cey Mawlana baay baay jërëjëf jërëjëf Mawlana baay cey Mawlana baay Cheikhul Islam ya Mawlana cey Mawlana baay waay jërëjëf jërëjëf Mawlana baay cey Mawlana baay Cheikhul Islam hmm. baay cey mawlana baay kundal jërëjëf jërëjëf mawlana xutbu mawlana baay cheikhul islam mawlana cey mawlana baay yo cheikhul islam yaa ko yeyoo ñun suñu yaay lu mu am jox ko maam baay lu mu laaj ko maam baay yaay kaw nu jaam suñu yaay caam njukkal yaa ko yooyoo bëgg-bëggam maam baay la royul ku doon maam ibra yaay kaw nu jaam suñu yaay caam njukkal yaa ko yooyoo bëgg-bëggam maam baay la royul ku doon maam seex yaay kaw nu jaam suñu yaay caam njukkal yaa ko yooyoo medina tay baakoosi ko ma moom ma ngay waame yaay kaw nu jaam suñu yaay caam njukkal yaa ko yooyoo Medina tay bakoosi kom ma moom a ngay waame yaayi kaw na caam suñu yaay caam jukkal yaa ko yoyo Kossy TV teewaayam jant bi leeral pey bi yaayi kaw na caam suñu yaay caam jukkal yaa ko yoyo Kossy TV teewaayam jant bi leeral pey bi yaayi kaw na caam suñu yaay caam jukkal yaa ko yoyo caam dembalem ko amul caam doo lekk lem yal na nga fi yàgg te wér yal na yokk sa maqaama guddal sa fan nga yàgg fi loolu yàlla di caam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 وصورة إبراهيم تبقي تذكراها إذا أبى هل علي تفاكرا متى دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي الخير لو كان موصرا أنا النفس والآفاق مهما رأيتها تراني فإني كله من عند ربي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله دك اللي مولي جر الله الله سر الله بايكوير الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله بقل باي مولي نقبل بالخار نولي وقل والله دينا خاطر الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا

عظيما والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله ومن فعله نهج إلهي ودينه وليس سواه إنما قوله قوله بنى قبة الإسلام بالوحي داعيا إليه جميع الناس قد ما ظله قديمك هذا في باريس معوقا سوى ولد الوادي النقل ثم وصله رأيت رسول الله جهرا ويغلة في باريس هل ذاك مرحته مرحته رأيت رسول الله نص بأنني سفير دوم في الكائنات مخلص الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله جواد لا إله إلا الله أخير لا إله ظهير لا إله إلا الله بطين لا إله إلا الله فناء لا إله إلا الله بقاء لا إله إلا الله تجلي لا إله إلا الله ترقي لا إله إلا الله الحمد لله